asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu waat bu baax leen ziyaare waat fii ci njaareem ci màggal gu Wabar Sàq yi ñu ngi toogal suñu bàjjen soxna Aminta Lo mi nga xam ne moo yor daara ji nga xam ne moo ne ci biir kër gu mag gi ci keesu gu Wabar Sàq yi di fi def liggéey bu am solo ñu fekk ko fii ci këram nag xam naa kàddu yi ñu daan taataan ci moom at mu jot rek ñu bëgg mu baaxewaat ni ko incha allahu ci mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii ak seen jikko ci ci ci lu gàtt ak daara ji nga xam ne moom la yor ci biir ci biir ci biir kër gi bisimilah soxna si. bisimilah min seytaani rajim bisimilah rahmaani rahim mu sant yàlla bu baax di julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal nag sayxul xadim mi nga xamante ne nun amun amun mun mun koo fay xanaa fu nu toll dañuy dañ koy sant rek di rafetlu bu baax nag liggéey bi ah, ah, sëñ sayxu naa joxaat ñu ngi lay sant bu baax ci farlu gi nga farlu. ci bisub soxna yu tedd yii ak yitte ji nga ko def yi nga yi nga yi nga yi nga yitte ci am te loolu lépp nag nga jële ko ci ñi nga xamante ne xëy na ñoo lay yónni walla ci ñoom nga jële ndigal ba mën a teew fii taataan ay kàddu euh, ñi ngi ñi ngi rafet ngi bu baax bis bii di bis boo xamante ne dañ koo dañ koo def saxal ko lu war a tolloog ñaar fukki at wala lu topp jële woon ndigal li nag sëñ Saliou mbaake jëre woon ndigal ci sëñ Saliou Mbacke ka ko jële woon muy Alaaji Abdou Diop indil ñu ko ak ñam ko ñam ko àndal di fàttaliku gu ñu fàttali soxna yu tedd yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci wanagu Sayxul Xadim di ay jàmbaar di ay saalihaat di ay aabidaat di ay xaafisaat di ñoo xamante ne nag bu bu ma bu ma bu ma doonee eh, koo xam ne dañ may askanale ci daara ju ma samp ci biir seen kees gii damay wax ne xeemeem ak bëgg a liggéeyal sëriñ Touba ak xeemeem seeni jikko ak yaru gi ma yaru ci lu ëpp ci ñoom ma yéene tout tànk yi nga xamante ne maa ngi leen di jàngal ci daara ji ñu jël ci seen jikko yi loolu moo waral ma samp fi daara ji daara ji doon daara joo xam ne nag sëñ Seexuna man damay wax ne ah, daara ji ma am kenn amu ko ndax lu tax ma ne kenn amu ko fi mu nekk la kenn amut ak pàkk boo xamante ne sëriñ Touba dafa def fukki at ak juróom def fi lim fi def jaamu yàlla dee yaaleeg boromam tag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba Seyd ba Seyd naa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si ko fi fukki at ak juróom fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom Seydina Muhammad gane si na ko Seyxul Xadim fii ci pàkk bu tedd bii kon soxna yooyu nekkoon ci wanagu sëriñ bi man ñoom rek laay dox seen seen laay laay xeemeem seen seeni jikko bëgg tut tànk yi fiy jànge am ci seen jikko seen i nag ci comme ni nga ko waxee rek pour mu gàtt ñoom day ay jullit lañu d'abord waaw ah, bi ñu nekkee ay jullit nekk nañu ñoo xamante ne ñu sell lañu taalibe Sëriñ Tuubaa yoo xamante ne ay tànnif lañu yoo xam dañ leen a tànn dañ leen a tànn nag suñ ko waxee ay jikko moo tax ñuy wax tànneef ay jaamukati yàlla lañu jaamu yàlla nag buñ ko waxee nekkul ci julli rek ak woor jaamu yàlla xeeti jaamu yàlla yépp yoo xamante ne jullit bi dana ko def di ci am tuyaaba soxna yi doon nañ def loola ndax euh, la ca ëpp mooy joxe joxe lépp luñ masaan am daan ko bokk ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal ci koñ bi buñ leen joxee njël daañu tibb joxe suñ leen fi indilee xéewal yoo xamante nii mën nañ ko joxe daañu ko joxe ñu dëkkal ci koñ bi kon loolu bokk na ci seen i jikko jikkoy joxe ak jikkoy tabe te def tabe moom boo ko xasee def yaakaar naa jikko ju baax fala fala fala tàmbalee jëm kaw bokk nañ ci tamit jaamu jaamu yàlla gi itam yemuñu woon julli rek waxtu juróom dañ daan taxawal ay naafi la dañ daan taxawal ay nawaafil di naafila di nawaaf di ñaafila di naafila di kemtilaay seen kattan boole koog di jàng alxuraan fu ñu toll nag amul benn bis bu ñuy génnal seen njàngum alxuraan amul benn bis bu ñuy génnal seen seen seen njàngum xasaayit kon loolu it ba tey war nañ koo roye ci soxna yi roye ci soxna yi maanaam neenal waxtu neenal waxtu cib jullit dafa doon lu xaw a doy waar ndax boo yorut téere yoroo loo mën a jànge war ngaa mën a yor sa cours tudd yàlla war ngaa mën a yor sa kurus julli ci yonent bi sallallahu alayhi war ngaa mën a wax sax jërëjëfe sëriñ Tuubaa ndax loolu nun dañ ko war di wax fu nu toll dañoo war a wax jërëjëfe sëriñ Tuubaa ndax nag moo tax nu am li nu am moo tax nag li nu am nu am ko sëriñ Tuubaa moo tax nu am li nu am kon loolu it bokk na ci seen jikko euh, bokk na ci itam ñoom it ñu war maalanteel woon lañu ñu soppante ñu bëggante ñu wóolonte li jafe ci jamono ji soppante bëggante war maalante ñoom loolu lañ loolu lañ doon dund kenn ku ci nekk sa morom da ko daan wax kenn musta sàll lu kenn kenn ku ci nekk saa ndey nga woowee sa morom soo jëndee piis bu rafet jëndal ko say gone boo ñëwee da ko wan ñëpp nga koy wan suñ ca bëggee fexe ba am ca suñ toggee ak ndawal mu soppi ko danañ ko danañ ca danañ seet lañ ca mën a joxe ñi leen ñoom ñooñu seen biir ba fu mu yem boole toggaate jox ñeneen loolu it ci soppante bi ak bëggante bi la la bokk kon soxna yooyu nag ah, boo gisee ci col gi it wàllu col gi naa ci wax Euh, ñu war maaloon seenu yaram lañu ni ko ni ko ni ko euh, alxuraan tudde daanañu sol daanañu woddoo ñaari ñaari sér euh, sol ab kamisol teg ci ab mël fa nga xam ne dara dara luy feeñ seenu yaram lu weesu seen ñaati bu jara ñu koy arxante ak seen xar kanam loolu rek moo daan feeñ ci ñoom daaw ñu demit fenn foo xamante ne nag faa dem daaw ñu dox xamuñu taxawaalu xamuñu génn jaxasoo nit ñi ku leen soxla boo dikkee boo dee góor buñ la xoolee benn yoon du ñaar dana sëgg duñ la wax mukk ko ko nam kon loolu wuute na ak jamono léegi jii yaroon nag seen njaboot tamit ci jàng ak jàngale ak maandu te ñoom mboolem soxna yii nga xamante ne ñoo fi nekk tey jii di leen di leen màggalal ak ñi leen fi jiitu woon ak ñi nga xamante ne xëy na dawlu nañu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yar nañ la yar boo xam ne ruq boo man di nekk ak dëkk boo man di nekk ab yar ab royukaay ngay doon fu la fekk royukaay ngay doon loolu daal bokk na ci soxna di koy soxna yi di ñaan suñu borom nag yal nañu yàlla fayal ñi nga xam ne ñoo taxawal bis bi ah ak ñi nga xamante ne ñoo nuy fekk di suñuy mbokk ndax boo geesoo nii ci sama ginnaaw ñii ci sama ginnaaw di soxna Mbodj Mbow ak ki mu àndal soxna soxna Rose Diop soxna ñaana soxna ak ñeneen ñoo xam ne suba ba nëga nii gisuñu ma mais dañuy ñëw di ma seet si ndax gis ma daan gis gi ma daan gis te te te xëy na mënuñu maa gis te mbooloo ma ñuy ñaan nag yal nañ ko def ay at yu baree bari liñ ciy wut muy ngërëmal suñu borom ak ñaan ñaan ginnaaw ñaan day jariñ si doa yan fa omaytan fil xubóor waaye yan fa ul xayye wu yoojibul ujoor ñaan dafay jëriñ ki nga xamante ne nii moo nekk ci biir bàmmeel waaye dafay jëriñ kiy dund ndax daf ko yokkal ab yool yal nañ may yool boobee ci barkeb Sayxul Xadim barkeb soxna yi di sant nag ñii fi nekk tey jii nga xam ne ñoo woote bi muy sët Sayxul Xadim yi nga xamante ne ñoo woote bis bi tàmbalee ko sëñ Ismaïla Mbàkke moom seex ma Cheikh Mamadou Mourtada soxna say Baara Mbàkke moom seex ma Mamadou Bachir soxna Kunta Mbàkke moom seex ma Mamadou Fadal moom Serigne Touba soxna soxna soxna Yaata Ñang moom soxna Ami Cheikh moom soxna Mamadou Serigne Touba soxna Muslimatu Mbacke moom Cheikh Mamadou Mourtada soxna Kubra moom soxna Astu Cerno moom maam Cerno Birahim ak mboolem ak soxna Ami Diop mi nga xamante ne daanaka lu bari ki lii moo ko lijjanti kon ñi ngi ñaanal ñëpp di ñaanal njaboot gi di ñaanal ñii yàlla nañ ko màggal ay ati ati at te làq di gërëmal Serigne Touba di la jagleel nag ak ñaar ak cant coono yi nga ciy bay dikk di def lii ah ndax boo dikkutoon tam xëy na lii mën naa bañ a am kon ñu ngi ñaan bu baax sëñ Seexuna yàlla fay la ci barkab Seexul Xadim mi tax nga yëngatu ndax ndax sëñ Tuubaa yëngatu ci moom defe naa xar baax rek la xéewal rek la ndax moom yëngatoom mag dalam ak dalam ak lépp lépp lépp lépp lépp lépp xéewal la wax naa leen ne ndegam ndegam naar ba ca gànnaar nga xam ne ñoom nit der bu der bu weex la ñu yore mm-hmm. ñoom ñooy tagg sëñ Tuubaa mm-hmm. di ko kañ ba wax ci aw aw bayit woo xam ne dama koy fàtt di ko fàttali quoi a mm. seexu ahmad nicmatun awlaaha hasal xalaayiq kullaha mawlaaha seex mm. siré baaba nee na sëriñ Touba mii kat xéewal la gu ñu suñu borom xéewale mm. kon nun ñi bokk ci sëriñ tubaa doon taalibe sëriñ Touba war nañoo santaat suñu borom ci xéewal googu ñu xéewal sëriñ tubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullah tabarkalla jërëjëf bàjjen am na solo lool ëppoon naa bañ def itam ñu ngi lay ñaanal yàgg dafay fekk at yu bëree bëree bëri suñ borom yokk wér gi yàgg liggéey bi ak Cheikhul Khadim daal di ji suñ borom yokk ko te képp ku fi génn suñ borom dafa la ci jikko yi mag ñu baax ñooñee ak seen barke jërëjëf Diop tubaarkàlla jërëjëf jërëjëf Lo jërëjëf jërëjëf Lo tubaarkàlla